yaa jiitee ASCOSEN mooy kuréel bi nga xamante ni mooy taxaw consommateurs yi mais ñu bëri Sénégal soo tuddee Mamadou ASCOSEN ah, kii dafa yàgg ci kuréel gi nangam sangam commentaire yooyu soo koy dégg lay def ak tamit yow ndax euh, changement de de de de à la de ASCOSEN nan lay demee. ak hmm. tamit yow ndax yaa ngi xalaat un jour jot nga jóge ci tête ASCOSEN ak yooyu noonu deme noonu daal. waaw xam nga loolu ay faux débat la. Hmm. am na ñaar fukki association. ak juróom-benn. Mhm. yoo xam ne association consommateur la. mais Ascosen moo gën a moo leen gën a xam. lu tax ñu gën a xam Ascosen. Mhm. parce que Ascosen moo gën a liggéey. Mhm. su fekkoon defuñ dara. du ñu gën a xam. lan moo tax nit bu jotee policier ñun lay o su fekkoon ne jàpp nañ ne ñun duñu def suñu liggéey direct euh, sérieusement kenn du ñu woo. lan moo tax nit ñi suñ jaaxle ci affaire location. ñun la ñuy y a vingt six associations de consommateurs mm-hmm. ndax man moo tax mm-hmm. parce que dañuy def liggéey bi sérieusement mm-hmm. parce que seen association bénévole la amul fay amul salaire amul dara amul xaalis amul xaalis suñ donc kon da ngeen ci nekk nii rek euh, pour liggéeyal réew mi quoi kese loolu du ah, suñ liggéey kon loolu kon lan moo lan moo waral xanaa est-ce loolu nit ñi xam nañ ko. xamuñ ko dañ foog ne est-ce que seen poste gouvernemental la. ok est-ce que daayira la ab daayira. Mm. association à but non lucratif. Ah, c'est important à préciser. comprendre nga. d'accord. Uh-huh. état bi ci boppam nanguwoo ñëw subventionné parce que ñun dañoo lakkale ndax bu état bi defee lu baax ñu ne baax na bu baaxul ñu ne baaxul. Uh-huh. am na benn texte boo xam ne depuis euh, quatre-vingt-treize. Uh-huh. après deux mille ba ba bi nga xamee ne président euh, Abdoulaye Wade mi ngi fi. bu wax ne war nañoo financer association consommateurs yi comme ni ñuy financer presse. Mhm. presse bi si chaque jour ñu saaga état. pourtant dañ leen di financer. Mhm. mais ñun ñi nanguwuñ ñu financer. Mhm. d'accord comprendre nga wax bi. parce que su fekkoon ne ñun ay ay organe d'état lañ. wala état lañ faral. wala nangam ni kon. kon état dinañu financer. bu dee état day financer ay privé. privé yoo xam ne ñoo nekk presse. ñu leen di jox un milliard xaw ma ñaata. ñun ñi nga xam ne li ñuy def liggéey état la parce que protéger consommateur état moo ko war a def. Mhm. ñu koy def gratuitement. Mhm. bénévolement. Mhm. d'accord. amul fay amul dara. alors donc yow boo gisee boo gisee boo gisee dama lay jox benn exemple. am na presque quatre cent partis politiques. syndicats yi presque soixante dix centrales. maanaam groupe de syndicats. association consommateur. Barke Dembo Ndiaye la ñuy doog a mat vingt six. xam nga lu tax. parce que parti politique boo ci nekkee hmm. da ngay da ngay espérer eh, soit nga nekk conseil municipal wala wala nga wala nga ngeen jot réew mi ñu no ñu nommé la dara loolu amul ci ASCOSEN hmm. amul ci association de consommateur looloo tax nit ñi bari ci d'accord d'accord mais comme fu mu nekk nii yow yaa ngi jiite waaw waaw est-ce que pour ne serait-ce que moo la mën nga féete fii moom féete fii. non non xam nga man dama man daal vraiment man daal Sénégal dañ maa jaaxal. waaw mm-hmm. ah, internet yi laaj de waaw. tiitit xam nga dafa am laaj yu yenu maanaa ak laaj yu yenuwul maanaa. Mm-hmm. Asco Sène bénévole lañ. 34 mm-hmm. ans ñuy défendre population yi. ak no propres moyens. di ci daj lu ne. ñu ñu ci jàpp di ñu masse courant. ñu ñu ciy porter plainte di ñu laaj ay ay centaine de million ñuy xeex ay ñoom Sonatel ak yooyu yëpp. di xeex ay Senelec tout ça. Hmm. ñu obtenir ñu alamaan Sonatel trois milliards. Hmm. de première fois deuxième fois douze milliards. Hmm. beneen fois bi seize milliards quatorze milliards. loolu yëpp ñu di ko def pour pour population yi. affaire location yi. man am naa kër je suis pas locataire. comprendre su ma ciy sonn pour ñu wàññi location yi nga foog pour kan la. pour man la non. je suis pas locataire. man du ma locataire du ma bailleur. comprendre nga wax bi. donc kon li may def dama koy def parce que dama ko gëm. d'accord léegi il faut que Sénégalais yi comprendre loolu. xam man question yooyu dootuma ci tontu. xam ne maanaam c'est du bénévolat. xaaral ma expliquer la non seulement c'est du bénévolat. Mhm. c'est du bénévolat. Mhm. parce que 34 ans. Mhm. man maa am naa sama boo xam ne moom laay liggéey. comprendre nga. Euh, affaire ah, yi. man sama xaalis moo ciy dem. ndax population yi. jënduñ carte. jënduñ carte. y a millions de sénégalais. Mhm. ñun 30 000 membres la ñu am. Mhm. donc membres yi sax du ñu cotiser. Mhm. bu ñu xasee ba jënd carte benn yoon balaa ñuy alors donc pour dire que. loolu c' est un faux débat. alimenté par des politiciens en manque no mais il faut que affaire bi leer. <laughs> c' est aussi simple que ça. bu fekkee nee nañ asko seen liggéeyuñ dara. Mhm. nañ créer association de consommateur. ku mu neex créer association consommateur. soo ñu gënee liggéey rek ñu dem ci yow. Mm, am na ay président d' association de consommateur yoo xam ne ba ñu nekk président man nekk gu ma président association consommateur. Mm-hmm. Mm-hmm. mais man tëbu ma nekk président association consommateur. Mm-hmm. damaa nekk membre simple. commission transport. Mm-hmm. may liggéey liggéey liggéey sérieusement bañ nommé ma président commission transport. Mm-hmm. may liggéey liggéey liggéey liggéey bañ euh, élire ma euh, secrétaire général. Mm-hmm. may liggéey liggéey liggéey ba président bi démissionné ma nekk président. d'accord man damaa da dama nekk ne koo xam ne kii la mais damaa ramper. d'accord comprendre nga wax bi. yaakaar naa ñii seetaan nañ xam donc ne ASCOSEN nekkul. Euh, ASCOSEN du du bureau gouvernemental. ASCO seen ab daayira la. ay bénévole yu jóg pour dimbale askan wi la. Mhm. mais nag bureau gouvernemental la. Konarel mooy commission nationale de régulation des loyers. Mhm. loolu état la. état la d' accord waaw il faut que nit ñi comprendre loolu. d' accord jërëjëf mhm. sëñ bi Ndao daanaka agsi nañ ci cappaandaw jotaay gi ñu baale rek nga def sa mot de la fin. li may wax daal mot de la fin mooy. mbéjum kanam borom a koy fajal boppam. su loolu amee ay àq. da koy laaj. waaye li nga xam ne mooy sa mm-hmm. ak li nga xam ne moom nga war a def mm-hmm. da nga ko war a def mm-hmm. képp koo xam ne yaa ngi ci dëkk bi da ngaa war a respecter li la yoon may laaj ko ba pare li nga xam ne moom la yoon may ki nga keneen ki nga jàkkaarlool nga nangul ko ko jox ko ko c'est très important ñun nag lii nga xam ne moom moom moom la ñu état bi jox comme mission muy réguler les prix du loyer dinañ ci dem ba mu jeex Hmm. amul kii amul kaa ku ci nekk ci dëgg ñu ne yaa nekk ci dëgg ku nekkul ci dëgg ñu ne nekkoo ci dëgg. Hmm. je pense que loolu daal mooy li nga xam ne moom la Sénégal di xaar hmm. pour que réew mi dox. d'accord jërëjëf monsieur Ndao. merci seen góob moo ngi lay sant di la gërëm. merci.